والقلم وما يسطرون mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw ba mu amalee jongante bi mu baaxoo def tuddee ko yaatal mbindum alxuraan compagnie Serigne Seck Sénégal c 3 mi ngi leen di yëgal ne dina amal cérémonie de remise des prix fukki fan ci weeru avril 2022 ci Grand Théâtre di bés bi muy génnee résultat yi bàyyeekoo ci jongante boobule boobule bés nag C3S mu ko tuddee Serigne Ndam Abdourahmane Lo di kilifa gu mag di ku nu ràññee ci tollu listam bi bokkoon ci mag ñi àndoon ak Serigne Touba Khadim Rassoul invité d'honneur bi di waa kër Serigne Mor Diop nekkoon jàngalekatu alxuraan bu mag ca Ndar lauréat bi jiitu dina am six millions de francs CFA ka topp cinq millions cinq mille francs ñetteel ba cinq millions fukk ak juróom-ñaari candidats yi des ku nekk ci ñoom dina jot ci neexal lu tolloog trois cent mille francs CFA C3S ngi ko yëgal njiitu réew mi autorité yi kilifa diine yi ak képp kuy safoo alxuraanul karim mise en place neuf heures ku ci bëgg yeneen i leeral mën ngaa woote 76 751 43 42 wala 70 736 36 36 ربك بمجنون يقود مولد النبي لرمضان فضلا عظيما قد يديم الفدان يقود مولد النبي لرمضان fadlan aziman qad yudimul fadaan ñu ngi fii ci kër Serigne Cheikh Fall ibnu Serigne Aliou Fall Mbawor moom Cheikh Ibrahima Fall ngir waajale fii li di koor gi te nag di benn fanu weeru koor ñu fas yéene seq ak moom lenn ci kàddu yenn ci ay kàddu yi mu fas yéene yëkkati jëmale ko ci dundu Cheikh Ibrahima Fall ak weeru koor bi kon Serigne bi bismillah sëñ bi ginnaaw bi ñu la nuyoo siyaar la sant la ci dalal gi ñu bàyyi la nga nuyoo ak mbokk yi auzu billahi mina seytaani rajim wala hawla wala quwwata illa rahim saddid lisaani nawir janaani safir amaani wasil baraay sansata dayro li xotta mayro fattak fi jawri min joray anqis iyaali min dalali wa bilala xaalis siraay xini kitaab waqul li kitaab waqul ma taw yaat siraay yaa xay rabbi xayra mu rabbi taayib te bi baatati jaay sali wa salaam ala wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu yéen mbokk yi jullit yi taalib yi mbokk yi xarit yi kilifa yi ni ngi leen nuyu di leen sant di leen seeni taxawaay seen bii nga num tudd Rafah TV kon nag Rafah na ko yàlla yëkkati ba nekk Rafah samka fa sawa amin ak sëñ Touba sëñ bi ñu bëggoon a xam cosaanul ndogg yi fi ko nga xam ne fi la ko Cheikh Ibrahima Fall doore ba fii ñuy waxee yow cosaanal ndog yi de Cheikh Ibrahima sëñ Touba la ko daan defal dama leen naan buñ naan ndog yi la ko waral man leen fii ne ña ña beru ci seeni kër sax li ñuy joxe ndog bu bu weeru koor yu jeexan dépasse lay tudd lii nag ñiy woor ba ngoon ñi di ko doge moo tax mu tudd ndog Cheikh Ibrahima nag boobu suñ mag bi da ko xamalal ne ko am na gan gu may séenu te bëgg ko nga teral ma ko mu ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci baraxlu mun leen tey la lan ñu ne ko eh, eh, eh, vingt vingt mu ne kon sëñ bi gan gi muy wax ko koor gi lay wax weeru koor wi ñëw la may teral la waaw léegi te xam nga sëñ bi gan la tuddee weeru yaa xayra day fin ata bi bi bi si loolu ma de ahlan wa sahlan wa tarhiban bi laa ko xasida gum koy teeroo defal ko gum koy gum koy moom buy dem ah loolu boobee nag la toog ndog yu indi ba mu indee ndog yi nag sëñ mag bi ne ko dabee ndab ñu jëkk ñu ku leen bëgg a dab dangay dem ci dab yi bi xam nga boo bindee da dab ak dabe benn bi la xam nga loolu nag ca la ndog yu tàmbale Cheikh Ibrahima di ko togg ba nekk na Cees sax ñu di ko yeb ci saxaar gi di ko indi sëñ mag bi njaarim bi sëñ bi bi sëñ bi bàyyi kon mu di ko def ci sëñ Moustapha Mbacke ñi fi nekkal sëñ Touba ñëpp bi mu fi bàyyi kon ay doomam di ko def ba ci suñu waajur mi bi mu ceeg seet nuyu na di ko defar loolu indi ndog yi Aïcha ñu bëggoon a xam taxawaayu kër Serigne Aliou Fall Mbawo ci kër Serigne Touba rawatina ci weeru koor wi ak ndogu yi. taxawaayu kër Serigne Aliou Fall Mbawo ci kër Serigne Touba de moom waxtu wu ne la ko taxawee rek ndax xam nga du de du taxaw nii ba bi sànga mu changé taxawaat ne ne ci ndigal sëñ bi daal lu ko sant mu def ko te du ne ci lu mu koy tere mooy taxawaayam lu mu dajale yit ko lu am jox ko luñ ko laaj buñ ko laajee mu joxe buñ ko laajul mu joxe loolay taxawaayu signal yi ci kër sëñ Touba ndax soo jumaa ji nga xam ne ajjuma jot daan toggi ndab rey ay nag ñu def koy ñam yóbbu ca jumaa ja ba sëñ Fallu tuddee soor bi Cheikh Ibrahima la ko defoon te soor bi ko sëñ Fallu daataa tuddee Cheikh Ibrahima xam nga sëñ mag bi nekk na fi ba soxna Fat ja nee na fi ba jàng ba jeexal téereb suuf bi te ñu fi sëñ bi amaat ñëpp dañoo wàccub liggéey léegi Cheikh Ibra dem boobu suñ baa ngi mbàkk xewar Cheikh Ibra dem fee Daaru Salaam dafa yat cib xat del si ne ko man de yërëm naa la ci yaradal gi mbàkke fa ma doon yette xat ba de suuf sa waxtaan na ma moom ba nga xam ne ko fa gane joon adduna maay ga fan wu guddoo sëñ bi ne ko boo fa delloo tibbal ca suuf sa yit ma ci suuf sa yit ko ne ko Ibra Faal ne yaa ngi xorxoral mu ne ko xam nga ne bët da nga lay gis xorxoral gisul mu ne ko won ma barab ba mu ne ko nag du ma la jiitu kon damay jiitu seexante topp ci man nga topp ci seexante waaye man du ma la jiitu daa jiitu di xalangu ca lay bi ndax booba ñax ñax mi day sëq ak bant yi day xalangu ci lay bi maam Cheikh Anta topp ci sëñ bi topp ci mu bañ lay ba mu fa egg seen nag ne ko xaaka ah sax kon nag day toxu si fii la barab bi mu bokkam yi nag ne doxam bi toxal na ko waaye neen ko néeg ba xam kenn kum néew kenn kum néeg fu ñuy mujj kenn kum néeg ku bëgg a samp ak kenn kum néew waaye dañu ba mu daje defaree néegam ak yëfam ba mu jekk gasi paxam ba sampi jënam fu mu ci jàpp suñ mag bi teg fee loxo ñu ne bisimilaay rek néeg yi teg ci dañoo jekki-jekki seen dëkk mu dib dëkk rek waaw léegi nag sëñ Moussa Mbacke ba mu ganee fa àddina bañ juróom benn weer sëñ Fallou ganee mu liggéey ba wàcc ñëw fi ne fa doon mooy fi ñu def xabru yu daaru salaam yi léegi fee ñuy denc moo doon daara Cheikh Ibra ba ba mu egsee nag mu ne ko soxna awa am na gan eh, soxna awa naa ko jàll si ñaanal liir bi Cheikh Ibra sikkar di war nii ba ne ko as liir bi jërta jërta ñaanal kii sa bi bii dana fi jekki bay at nga xam ne fàllum ji moom teel na ko wax ne ko fàllu doon fi jekki bay àtte ne ko bu boobaa fàllu bu ma fàtte waaye xam nga liir bu tëdd ci nglisit ñu ne gane nga dina tey kale kale dig nga bañ koo fàtte nga nga denc ko bu xam nga jëmm tudde nañ ko liir waaye jëmm ji liir wut jëmm jee liire waaye am na lu mu indaal waaw ah, te mooy da ko waxal boppam ndax da dane ah, fii de guddi kasu rajab gi da ko daan fanaane Daaru Salaam bu bu fanaanee ba suba mu del si ci sëñ aafi mii nga xam ne ñoo bokk waajur wu jigéen yendul ko soog a del si kër sëñ bi bu ñuy wax guddi rañaan geeg nu yonte bi def mu ne waaw noo daje ndax dana la yi mën a cëpp rek xam nga yonte bi moom daa jóge ci suuf mu ne noo bokk a te yonte bi dañ ne bi mu demee ba juróom-ñaar bi asamaan weesaloo na fa kook kooko da ko ne suñ borom ma woo waxtaan ci suuf ci juróom tax ta saree te kooku ñoo bokk même heure nga xam ne kon day mel ne waxool jël yi waxool xaf yi jooju sëñ bi wax ah te te moom wala wala wala axir wa saay loolu baatin bi ko seen alimi loolee nag sëñ Fallu nag bi jumaa ji eggee mu jëlub junni génne booba junni yi góor gu mag ku rafet a ci ne sikkim bi sax ñi di ko wax sëñ Basiiru lañ ko tuddee woon mu génne ko ne ku ci xam sooro bam ba bañ liggéeyee sax ba ba bëgg a defee ne noppi ne da leen ne nañ def fi sooro bu gudd boobu juróom-ñett fukki mètre ak nangam lay doon tubaab yi ko doon liggéey ci bu ci suuf si yóbbu France dellusi ne ko suuf si ko àttan mu neen def leen li ma leen wax maa koy taaw ci sama ténk sa tuut fii waaw bi ñu defaree soor bi noppi nag mu ne nag soor bi nu muy tudd xam nga foofu dañ ko waccan yudd boobu day féexal te nekk boobu yudd bi liñ fi nar wii dee ñëwagut waaw léegi nag mu ne leen nu muy tudd ku ne wax xam nga ku ne ku dul ku gis si jàkk jën mën a ko tuddee te jumaa dara ñi ñiñ lim ñëpp nag suñ fal ne kon junni la xuusaat ci sama poos ma lekk sama junni mu ne sama bàyyi Ibra ngoo ngoogi ba ma fàtte jam ko wax nag nee da koy fàttali kuy fas naa yéen kuy dugg ci dëkk bi moom ngay jëkk a gis kuy kuy génn moom ngay mujj a gis bis ba mu ko defee nag sama waajur defar ay nag ak booba saaku yu ceeb yi cinquante kilos yi amut saaku yu mag yi am nañu def ay xóol siyaam te booba cent kilos yi juróom-benn téeméer lay jar sëñ bi defar ci nag yu bari ak ak ceeb ñu togg ko yóbbu kër sëñ Fallou mën a day ngénteel Cheikh Ibra sooroor bi ba ajjuma ja dee see mu defaat ko ajjuma ja def ko ba def ko ay nangami téeméeri ajjuma ak nangam Abdou Niang ak Baye Saana mag ñi ko daan defoon àndoonoo noonu ñëw mu ko ba mu kii nag nga bàkko noonu te continuer ci yii lañ ñi sant dan laa yërëm ci coono bi këyit lañ bind ne nangami ajjuma la sëñ bi nanga ko xotti ko léegi yéen da ngeen a bëgg ko naagu te ko naagu daagu te ko daagu ñaraw la bu ma ci nit waxati baat yàlla def bañ ko defee ba diir ndeetal nag yooyu fi ñëwoon nga xam ne danañ jaay daanañ jaay aw nag ci paquetu war teewerte sii nag peñub suukar boo peñu suukar ñaar fukk ak juróom lay jar ngó ngóobum ceeb man suñ fal doon ngóobloo ca risaatol ah, jën nañ fay ay nag ci téeméer bu manqué ah, ay ay ñeen fukki dërëm ak ay juróom ñett fukk ak juróom benn fukk sëñ bi nag woo ña ko ca doon yet nag ñu dajawaat mën leen fa ngeen ma doon denc loolu nag yéen nag ña fa dencal ci nag seen yetu kese lañ dese man nag samay nag denc naa ko foofu ndeetal fekk ko non foofu la seen lu féete woon ci kër Seex Sëñ Tuubaa macha allah sëriñ bi ci kàddu yi am solo gis nañ ne jamono xaw na jaxasoo ba am kàddu yi ñuy faral di yëkkati di ko teg ci yoon wi ba am ñu jàpp ne sax Baye Fall bokkut ci yoon wi te mën nañoo wax ne Baye Fall moo sos yoon wi nga fàttaliwaat ñu meloo Baye faal ba tax nit ñi gën a xamaar kan mooy Baye Fall. melo baay Fall de mooy kër goo dem ka fa gën a dëgge da gën faa nangu ndigal gën faa tabe moom la ñu tuddee Baye Fall ñi yori soxna sax soxna sa la ci gën a déggal dañ na ko yor kër rek bari jabar na nga ci am koo xam ne boo boo doon am gan boo sañan mooy aaye kooke nag mooy Baye Fall ci sa kër waaw <laughs> Cheikh Ibrahima nag moom woowu yoon la dog lu yor joxe ko te du tooñ tey jéggale tey dimbali ñëpp yërëm ñëpp ndax da li sariya wax natt asaka ak julli gi dana julli yër sa bàmmeel la Ibra Faal day wuti ci def ndax bàmmeel yër ko féesalu ko natt asakaat mu ne ñii ndax di séddoog yàlla jël juróom-ñeent jox ko jox ko benn te xam nga noonu ñu ko wax waatuwaa ko yow ma osaad yi nga xam ne boo ko nattee da nga a génne ca bisub kii te am na ñooñ léegi bu a xam ne ñoo leen war a ci ndimmal ñoom la ñuy fab asaka ji féete leen ko te asaka daa am ñu ko war a moom mu ne leen nag di séddoog yàlla jël juróom-ñeent jox ko kii ba te fii ne boo demoon ci mbayi dër yi koo koo koo bu ngeen bayee ba noppi day day génn day calculer li mu ci fare woon moom ba mu génn ak li mu dépassé woon ci yow li mu dépassé ci boppam bu dépassé jeexee ngeen soo ko na ku ko defoon nag moom bu ngeen séddoo nga ñàkk ndax yow mi yow yow bi nga def ci tool yi moo ko moom moom la yoon ngay matériel suuf si di matériel ndox mi di matériel am jiw wi moo ko sàkk muy matériel am ak asamaan seeg naa ju koy tàng wa jaaxal naa mi la maay kulu sayin ayin kooku nag moom moom lépp kooku bu ngeen doon séddoo bu jëlee lim ci moom doo dese da nga dul ne bay dese dara yàlla ko di mag ma marché muusante doo am bénéfice ak saa sëñ bi ñu dikkaat rek ci melokaan bi nga xam ne Baye faal yi faral nañ di gis ñu koy def maanaam cosaanul sëqal karaw ak njaxas yi ba tax na ku ñu gis mu def ko rek ñu jàpp ne ñu ne Baye Fall la loolu cosaan la ci wala sëqal karaw moom cosaan la xanaa kon yàllaa ko so ndax boo fi gis indaale lu mu ku fi ñëw rek kawoon nga fi indaale ñoom kay ñoo ci dugale pexe wat ko noonu nag ne ko yàlla defal lan ko bàyyi waaw yet day ne yaa ngay sol mbubb ma la neex ci Cheikh Ibra bi yére yi xotti ko ak it nag du dàkke bassin ki passé ki yëf di ko sol ndax moom ci liggéeyal Sëñ Tuubaa la nit ñi xol bu bu mu jàpp gom lañ bëgg moom nag xol bu jàpp gëm la bëgg xol bu te yàlla xol bu jàpp gëm ko gënal bu mu jàpp gom Cheikh Ibra nag ca loolee la féete woon xam nga tën yi moom bokkut ak jikkoy borom ndax fi ne ab sàcc mën naa sol lu weex nga yuux ko mu summi ko sol lu ñuul mbubb ya menn sàcc ji jëmm jë jëmm jooje tudd sàcc bu may sàcc te ñii nuru nurul Baay Faal ñëpp nag bokkuñu ak Baay Faal dama leen Baay Faal moom bu doon oto mooy safoor bi fii ne doo dégg màggal gu xat wala gàmm wala fenn oto yi xat ba si bañ siir sarto ba jël place safoor bi looy dof dof moom da ko fa bàyyil place am tableau de bord baat lañ ci bind wuñ ko ko kenn te bu ko gendarmerie wala police du wax ak client yi moom lay waxal koo koy Baay déet ñooñu kat yoon wu ne am na fa sànkar ci pañub gura bu ne la am ki yéeyee seet doom ba mu bëgg cathédrale ba meluñu ñëpp meluñu nañ ko bëggee tiijaan nga noonu xaajër ga noonu feneen noonu dañ cee séri Baye Fall Baye Fall nag du moom lim ne li sëñ Cheikh Ibrahima noonu sëñ Bamba asamaan la du ma nangu sobe laal ko man nag maay suuf luñ luñ buum nañ ma xëpp waaye fi ne santaare boo dem boo gasee suuf su weexee ne ca biir waaw jërëjëf sëriñ bi ci waxtaan bu am solo bi eh, fi ñuy tàggatoo ak yow rek nga dikkaatal ñu ci taxawaay taalibe bi nga xam ne dafa aju ci kër Cheikh Ibra ndax day mën naa ci kër Cheikh Ibra te di yóbbu ndogu wala faaw mu def ko. li ko aju ci kër de la def ngay def war kaw maaraakee na lañ wax jullikat yi di jullee leen ni gaa yi jullee. boo boo boo mënta boo mu doole yóbbu ndogal xanaa am nga doole fap lu jëm ca ndogo yi jox ko ña ko yóbbu Ah, wala um, boo ko amuti yàlla moom xam na xol boo xamee ne amoo ko ba noppi yéene nga yéene jooju yàlla da koy fay waaw ah, waaye nag na defoo ci ba noppi am ko denc ko ba noppi wone ne yéene nga yéene kese yàlla du ko fay dañ ne ina anniyatu ah, ab la niyatul moom ne na déglu ma rek niyatul moom ne ablahu min amalihi Cheikh Ibrahima ne wedd na lool ndax ne niyatul mu'min ab loxo min amali ndax yoom yëpp yéene nañoo ngénte te kenn du ci am doom te dama leen ne tëbaskeet ku ci tëbaski te ci ku ci ku ko tëbaskee ci yéene bantu kër naa du ci am yoon macha allah jaajëfal nañ la lu baax Fall Yaaram ñu daal lay bàyyi rek nga tàggatoo fàttaliwaale ñu leen ci jikkooy Cheikh Ibra Fall joo xam ne buñ ko tegee ndaw ñi dinañ ci war a mën a roy xanaa sant leen na gërëm leen rek jikkoom daal mooy jikko yu mag ñu baax ñi li yàlla santaane woon ci jaar du dem ci luñ koy tere ndax sëñ mag bi doon dana bëgg leen Ibra Faal ngir li ma bëgg bëgg leen ko ngir li ma ko bëgg bëgg leen ko ngir bëgg ma bëgg leen xam nga ne kon na sëñ ba mel ko ko koo xam ne diggam mag yàlla nangu dara rëcc ko ci ba rakk yi kon nar na raw sax daa cëppeelu ndox ndax ngir bañ koo faat boo àndee ku julliwul wóorut lañu ànd dëgg la ci moom xam nga xam nga dañ naan bu yomal xayaamee ku julliwul yonente yi jiitu yonente bi fekk ñu fenn julli dañoo nar a lakk ña ca des ñëpp hmm? ku ci nekk mission bala yàlla teg say loxo rek dañ naan yàlla waxul kenn dara waaye yàlla wax nag yonent bi nga xam ne ne da koo xam ba ximi ba ximmi kenn dara du ko gëm ñi ñi ca ñii wàcce nañ ci ay téeméeri téere ñii ay ñaar fukki téere ñii fanweeri téere da nga naan yàlla waxut ak yow kay waaye waxut ak kenn dara moo amut sama boppa ngi métti daa gën a wér sunuy boppa ngi métti ak taalibe nag da nga koy day ne sa sab xol feeñ say cër waaye doo ko mbubboo aspirine bu ñu ne day faj ba bu metti waxuñu nga seeyal ko raxase ko da koy naan jaajëfal lañ la bu baax kër Serigne Cheikh Fall Mbawor moom Serigne Aliou Fall fi lañ amaloon tey sunu doxantu bi ñu baaxoo daan amal ci weeru koor ci buntu kër Cheikh Ibrahima Fall ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax yéen ñi nga xam ne yéen nañu doon topp ci Rafah TV di ko ñaanal moom Fall yaara mu yàgg fi lool te weer euh, ba li mu yéenee liggéeyal maama mu defee ko ni mu ko soobee soxna maam Bousso Fall moo nekkoon ci kàddu gi bàyyi Serigne ci caméra bi jërë ngeen jëf. والقلم وما يسطرون mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw ba mu amalee jongante bi mu baaxoo def tuddee ko yaatal mbindum alxuraan compagnie Serigne Seck Sénégal C3S mi ngi leen di yëgal ne dina amal cérémonie de remise des prix fukki fan ci weeru avril 2022 ci Grand Théâtre di bés bi muy génnee résultat yi bàyyeekoo ci jongante boobule boobule bés nag C3S mu ngi ko tuddee Serigne Ndam Abdourahmane Lo di kilifa gu mag di ku nu ràññee ci tollu listam bi bokkoon ci mag ñi àndoon ak Serigne Touba Xaadimu Rasuul invité d'honneur bi di waa kër Serigne Mor nekkoon jàngalekatu alxuraan bu mag ca Ndar lauréat bi jiitu dina am six millions de francs CFA ka ca topp cinq millions cinq cent mille ñetteel ba cinq millions fukk ak juróom-ñaari candidats yi des ku nekk ci ñoom dina jot ci neexal lu tolloog trois cent mille francs CFA c 3 ngi ko yëgal jiitu réew mi autorité yi kilifa diine yi ak képp kuy safoo alxuraanul karim mise en place neuf heures ku ci bëgg yeneen i leeral mën ngaa woote 76 751 43 42 wala 70 736 36 36. بمجنون يقود مولد النبي لرمضان فضلا عظيما قد يديم الفدان يقود مولد النبي لرمضان فضلا عظيما قد يديم الفدان